bokk jullit yu tedd yi ñuy seetaan fu ñu nekk ci réew mi ak bitim réew ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara di siyaara sëñ Mourou Mamoun mi nga xam ne moo jiite liggéey bu am solo bii. Euh, Alaaji Mor nag mi ngi gane àdduna 1927 février 1927 ci dëkk bu ñuy wax keel waaye juróom wu góor tudd suñ moo Guèye waaye juram wu jigéen tudd Soxna Aram Seck mu waajuram woowu nekkoon nekkoon ci daara Cheikh Mouhamadul Fadal sëñ Modou Gueye toolam ay toolam nekkoon fii rek ci ndindi fii di maggi taalibe yi sëñ Tuubaa boole woon ak Cheikh Mouhamadul Fadal moom mooy mooy waajuram Modou Gueye sëñ ku ñuy wax sëñ Modou Gueye moo ko indi yëkkati ko moo magam ku ñuy wax sëñ Cheikh Gueye ak sëñ Sayar Gueye jox leen Cheikh Mouhamadul Fadal mi ngi ñëw Touba nag 1946 la ñëw jébbalu ci ci ci la ko bàyyam yëkkati indi ko fii ci dëkk bi boobaak léegi génn Touba mu nekk ci daara Cheikh Mouhamadul Fadal ji mu njëkk a nekk mooy Aliya ba mu fa jógee itam nekk na ci daara ju ñuy wax ñànka ñànka di tarbiyewu boole kook di jàng ba mu fa jógee it sëñ bi bi muy laaj dongay jumaa ji mu mu mu mu jël ko jële ko fa indi ko ci jumaa ji mu nekkoon yor teen boobu ne ndoxum jumaa ji ndox mi nga xam ne moom lañ doon roose biton bi jëm ci jumaa ji te teen boobu ne kër sëñ Touba tudd Jaaji Fall moom la ko Cheikh Mouhamadul Fadal féetale woon mu nekk fa diirub liggéeyub jumaa ji ba ni jumaa ji mate mu jóge fa ci la wàcc ci daara ji nag dugg ci mbirum yaxantu ci kër Cheikh Mouhamad kër Soxna Soodam mu Mouhamadul Fadal muy ci ginnaaw kër sëñ Fallou gi foofu la yoroon ab boutique di fa commerce ba 1965 la ko Cheikh Mouhamadul Fadal woo ne daa bëgg ñu wutal ko ku yor dëkk bi fekk na booba sëñ du Bousso wa moom sëñ Afiya Bousso moo yoroon dëkk bi sëñ Fallu ne nañ ko seetal ci donga yi koo xam dana ko mën a yor sëñ Ousmane Bousso moo ko ko proposé boole ko ne ko am na ngóor su ne ci sama bitig bii de xam naa buñ ko ko joxee dana ko mën a yor sëñ Fallu ne ko li nga wax fan nga ko teg mu ne ko ñaar yi daal fiir naa ko ci mu mucc ca muy ab xaalis ak. wàllum jigéen ñi ndax musuma ko woo mukk mu yoo ma kër jigéen ña te xaalis bi ma koy dénk da koy lijjanti noo xam ne ni day doy waar sëñ Fallu ne nañ ko woolu ñu mu dénk ko dëkk bi 1965 woo ku ñuy wax Baxaw Fall boobu moo nekk chef de canton bu Mbàkke pour boole kook moom mu commencé ab liggéeyam waaye suñu waajur bu fu ko bu ko daan nettali daan wax ne boobu moom xelam ci commerce la gënoon a nekk ndax booba commerce na ba jënd ab oto ku ñuy wax suñ daam daraame jóge fi bu yàggut moo ko ko defal mbaar defal ko ba bëgg a jëndaat beneen oto euh, ñu ne ko sëñ bi da laa soxla woon neen bi muy dugg si dafa dégg ñuy wax bay tudd turam naan Mor Gueye nee na ñu bi mu duggee xam nga kuy dugg ci si mu néeg rek dégg ñuy tudd saw tuur day mel ne dañ la doon wax dara bi mu ñëwee nee na baxaw faal mi ngi toog ne tekk sëñ Fall ne tekk ak sëñ Ousmane ak mbooleem mag ña fa nekkoon. nee siñ Sëñ Fallu dafa wax ne góor su ne de buy wax ci moroomu góor war na bu ñëwee mu jàll. nee na lool loo baat boobu la it ne ko doyuñu la dara nag dañ na dañ ne woon dëkk bi mën nga ko yor ñu ne ma mën nga ko yor ma bëgg nga yoral ma ko. nee na ñu ne tekk ba mu yàgg mu mel ne loo xaw a kii mu ne ko loo ci loo ci wax mu ne ko dama dama dëkk bi di siñ bi dama bëggoon nga ñaanal ma ndax dafa am ñett ñoo xam dafay nekk ma ragal leen. nee na bi mu ko waxee loolu nag sëñ Fall daf koo tàccu ndax sëñ fa lu baatin la feese woon dell waaye daa bañoon koo ko laaj lool te baatin nit ñi ko am dëgg pour ñu joxe ko lu lu lu lu duñ ko joxe ci noonu koo gis muy dégg yombal baatin rek xamal ne baatin moom yombu ko nee na bi mu waxee loolu sëñ Fall da koo tàccu ne ko bu ci ak yàq nekkoon duma ko def du bu je nee na keroog sëñ fal wax na ko ne xam naa démb xam tey xam suba dañ ne ma mën nga koo yor rek moo moo moo ba mu yàgg ñu ne tekk ba mu yàgg mu woo ko ne ko lan nga lan wax mu ne ko dëkk bi ñett dafee nekk ma ragal leen muy bokki Sëñ Tuubaa yi ak do do dongay Sëñ Tuubaa yi ak waa kër Sëñ Tuubaa yi Sëñ Fall ne ko nga bëgg ci lan mu ne ko ñett ñii de boo ma garantelee ne doo ci yàq doo ci yàq ma yoral la ko Sëñ Fall ne ko lay say loxo ñett yooyu moom doo ci yàqu doo ci yàq le mu yor ko ba fi ni fi Sëñ Fall lu jógee moo moo moo dëkk bi ñetti at yi nga xam ne 65 66 67 ba 68 sëriñ Falilu daa di daa di wàcc mu daa di ànd ak sëriñ so ànd ak Seex Musaa Falilu ànd àndin wu rafet ci lépp rek ba bi ñuy waajal Seex Muhammadul Faadal fee ñu ko def euh, si sëñ Moodu moom la doxale woon diggante sëñ Seex Gaynde Fatma ak sëriñ Suhaybu ngir ñu waajal ko euh, foo foo fee ñu ko def tey ba ba barab ba ma a sotti moom it mu mu njëkk jël néeg boo xam ne moom la defoon bitig foofu kër Serigne Cheikh soxna Sooda dem euh, guddi gi ñu dencee Serigne Fallou ba noppi bordaasub seng la moo ko fa njëkk këpp bordaas boobu Serigne Modou xayra la ko yóbboon foofu jàkka ji nekk fi la nekkoon mi ngi euh, kër Serigne Jilim Serigne Modou fii may wax ak yow Serigne Jile Serigne Modou moo ko yóbbu këram mooy bordaas ba nga xam ne moo ko njëkk a suturaale Cheikh Mouhamadul Fadal daf koy wax lu bëri ne étage yi mu am moo ko ko may depuis ba mu jógee foofa itam ba tey liggéeyatu te fa mu nekkoon lim lim yitu woon yëpp yàlla nga ko doon defal loolu it li ko may mooy liggéeyal ku mat a liggéeyal ndax ñoom bu ñu gërëmee rek ku dikkati gërëm te du sañ bañ. ginnaaw bi it sëñ Abdoulaat xalifa ak Cheikh euh, Abdoulaat yor na dëkk bi ñetti at yoo xam ne yi sëñ Abdoulaat njëkk a toog yëpp moo ko yor ginnaaw bi la ko sëñ Abdoulaat jox ku ñuy wax sëñ loo ginnaaw bi mu jox ko ku ñu wax sëñ Thierno Diaw woo ko ne ko nag dee ko de ànd leen nga nga ko ci jàppale ndax yaa ko xam bu baax moo si noonu la nekk noonu la nekke woon ginnaaw bi mu takku nekk ci ginnaaw sëñ bu Bousso Dieng lépp loo xam ne nii ba ci màggalu sëñ Fallou gi bi ñu koy sos ak lépp waxtaan yu am solo yi ñu ci doon def mook sëñ Modou yëpp sëñ Modou bi mu jógee Kinshasa gént mu Mouhamadoul Fadal bi mu ñëwee moom la ci jëkk a waxtaanal ñu di ko dox ak suñ mortalaam Cheikh Mouhamadul Fadal di ko di ko taxawu màggal gi ba màggal gi ak fii mu ak si tey. ni noonu noonu itam euh, sëñ Moodu yëkkati na doomi sëñ Fallu jox ko ko muy soxna ami Cheikhum Cheikh Mouhamadul Fadal noonu itam relation boobu it la amoon ci mbooleem njabootuk Cheikh Mouhamadul Fadal gépp musta am ab dogal it ci boppam. am tudd sax su ko musaana am day toog du xam ku ñuy tudde doom ji ku fi ñëw ci njabootuk sëñ Fallu gi boo ci magee rek yow lañ koy tuddee. ba loolu moo sabab mu am sëriñ jilim sëñ fallu mu jigéen ndax dafa amoon benn bis am tudd jotaay ba sëñ Abo mii moo fa sëñ sëñ jilee fa magoon moom lañ ko naroon a tudde ñu demee bay bëgg a tudd la sëñ Moodu ñëw ànd ak sëñ Abo mu far tudde ko sëñ Abo sëñ Moodu ne sëñ jili yow muñal sa wàll ma ngi ñëw nga xam ne ki mujjee gis jigéen la dane day dëggal waxi mu sa Fallou joju tudde ko sëñ jilim sëñ fallu ndax moo ne woon wàllam dina ñëw loolu loolu it ba euh, gëm sëñ fallu la ak bàyyee boppam sëñ fallu musta am ab ab dogal ci ak njabootam musta am ak ab dogal ci jëmmi boppam ni ki noonu doom yi nga xam ne moom la ko yàlla jox yëpp yu góor yëpp da leen a jë fam fa fa ko bàyyam tegoon rek la leen teg ñëpp da leen sedd séddale ñu dem ci daara yi doomi Cheikh Mouhamadul Fadil ñi kenn ñi ñii Sëñ Modou ak Sëñ Jilim Sëñ Fallu ak mboolem njabootuk Sëñ Fallu gi daal fenn fu fa doomam nekkul rek doomi rakkam wala doomi magam moom fexe na ba yóbbu la fa ni ki noonu it njabootam gu jigéen gi noonu la leen daan def da leen daan yóbbu ñuy def li ñuy wax ay sàbbàjjan di leen joxe ñu ñu ñu wuti ngërëm ndax li fi am luy jaay la Sëñ Fallu dafa waxoon ne yaa ayyuha seyxun nafisu murtaja yaa fatihan maa xablu kaana murtaja beextu bu nootee bil iraada lakkum li koy onsa bi xarihaada doon bu doon doon jaayante mënta ñàkk kon Cheikh Mouhamadul Fadal du bind bayitam yooyu ndax sëñ tubaa daf leen a woo mook sëñ mu roqee Buso ak sëñ ma Sàmba seex Cheikh Moustapha ne leen li fi am day jaay ak ak ak njureel mayoo ko ku ku ku ku ku ko jënd may sa ku ko jënd may sa baay ku ko jënd may sa nijaay ci la sëñ lu bindoon bayitam yooyu di ko bindi leetarit di naan ko dama laa bëgg a liggéeyal bu alaaji sëriñ Cheikh Oumy Mbàkkeem Cheikh Mouhamadul Fadel taxawee bis bu mel nii di ci fàttaliku ak di ci ñaanal waaye dawlu ya ñi nga xam ne ay liggéeykat yi Cheikh Mouhamadul Fadel la ñoon ak sëñ Afiya ñang mi nga xam ne moom mooy lépp Cheikh Mouhamadul Fadel di mbokkam ci lépp ak sëñ Cheikh mi nga xam ne dafee bàyyikuwaat ñu leen ci fàttaliku di leen ci ñaanal ndax it ña nga xam ne ñoo faatu nekk barsaq Muhammad yee ñoom ñëpp de koo ci laajoon loo gën a bëgg sëñ Tuubaa bind na ko mooy dellu bar saq moo dellu àdduna donte ab simile nga def ko lu baax moom nga gën a bëgg kon ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla dogal ñuy dund bu sëriñ bi taxawalee bis bu mel nii di ko wooteel sëñ Fallou ñu fay jàng ay ay alxuraan ak xasida yu bari ak ay salaato salaatu ala nabi di leen ci ñaanal ñaan googu rek moo ëpp sole ci ñoom ñaan googu moo ëpp sole ci ñoom ndax Sëriñ Tuubaa wax na ko ci ay ay isid du'a yan fahu maytal fil xubar wa yan fahul xayya wa yujibul ujur ñaan day jariñ ñi nga ñun ñi nga xam ne ñoo nekk aduna di dund waaye nag day jariñ ñi nga xam ne ñoo fa ñoo ñoo ñoo nelaw ñoo nekk bar sax kon lii dara ëpp ko solo laaj moor nag moom euh, ak dundama léppam Sëñ Fallu la ko joxoon léppam si euh, te it mën naa ne lii Sëñ Seexu mi def asaar sax mën na cee bañ am ndax comme ni ko Cheikh Mouhamadul Amin waxe euh, soxna Maguette Dieng mi nga xam ne moo ñëw ci kër Cheikh Mouhamadul Fadal alaaji sëriñ Cheikh Oumy mooma moo ko indi ci loxoy Cheikh Mahamadul Fadal mi ñu ko tuddee moom te keroog bi mu bi mu bi mu yónnee mu ñëw ci kër Cheikh Mahamadul Fadal leetar bi mu bind alaaji Mor Gueye mii la ko jox mu jëli ko nee na waxtu koor la keroog ab xaal la doge kon bu ñëwaatee ba sëriñ Cheikh Oumy sosu ca loola taxawal bis Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke di ko ci fàttaliku di ko ci ñaanal mën naa ne asaar mën na caa bañ di ñaan rek ñu dëpp ñu dëppoo ci bi Eh, te te te lépp luñ fa ñaan ya suñ borom nangu ko jotali leen ca yool ba ñoom ñooñ ñëpp barkeb Cheikh Mouhamadul Fadal